aleykum mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital nuyu bi sunu xalifa sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaaral mu yàgg fi lool te wér bon man la docteur Alé maa ngi ñëwoon fii ci infirmerie de la grande mosquée ñu sas ma ma nekkoon le coordonnateur médical des activités durant le màggal ñu ngi santaat ñëpp ndax euh, bëri na mbooloo yuñ ci àndaloon waa Touba assistance médicale collectif des pharmaciens ak euh, le district sanitaire ak waa daayira bi nga xam ni ñoo fi nekk di waa Muxaddamatul Xidma ci biir loolu ñoo ngi fi def lu mat juróom-ñaari fan laataa ñuy màggal def nañ fi ñetti fan bisu màggal ak bin màggale ba noppi ñetti fan tey ci àjjuma ji lan bëgg a tëj clôturer incha allah ginnaaw bu tàkkusaan jotee liñ fi jot a am ndax euh, am na ay consultation yoo xam ni consultation générale la yooyu bëri na lool takk lool waaye danoo segg jël li nga xam ni ñoo nekkoon ay urgence médicale ak ay urgence chirurgicale yooyu nañ fi jot jël ba xayma ko ci biir loolu ñu ngi jël ci urgence euh, yi nga xam ni dikkoon nañ ci biir infirmerie bu grande mosquée bi lim bu tolloog téeméer ak juróom ak juróom-ñaar ñoo ñooy urgence médicale yi nga xam ni jàpp nañ ni suñ leen jëlul woon fii en charge bala ñoo génn jumaa ji su leneen mën naa am kon donc ñooñu mooy urgence médicale yi ci biir loolu it urgence médicale yi def nañ ci ay référence am na urgence yu ëpp dañ leen a jël en charge fii ci biir infirmerie de la grande mosquée am na ci ay urgence yoo xam ni nag mujj nañ leen a référé référence yi tamit ñu mu tëddee mooy am na ci ñoo xam ne yóbbu nañ leen ci EPS 1 bi muy hôpital Ndamatou am na ci ñenn ñoo xam ne yóbbu nañ leen ci EPS 3 euh, bi hôpital de niveau 3 muy hôpital Jannatul Mahwa ñi ci des tamit yóbbu nañ leen lu mat limu vingt vingt personnes yóbbu na leen ci centre de santé buñ xoolee ambulance yi ñu doon utiliser ak jumtukaay yi fi tegoon yóbbu nañ lu mat fanweeri nit ci ay référence kon donc fanweeri nit jóge nañ ci biir euh, euh, jumaa ji infirmerie bi dem ci gox yi nga xam ni ñoo gën a taxaw ci wàllu santé bi boo xoolee tamit. mbooloo mi fi daje woon ci jiiru juróom-ñaari fan yooyu lu jëm ci ay médecins yi nga xam ne jóge nañ fu ne Touba assistance médicale médecins yi nga xam tamit ñu ngi ci biir gox bi nekk ci biir Touba di fi liggéey bokk ci tamit ci kuréel bi nga xam ne boo nañ liggéeyee fii boo limee lépp dana yegg ci ñaar fukk ak ñaari médecins ci biir infirmerie bi tamit amoon nañ fi lu mat ñetti pharmacien ak ñi nga xam ne ñoo ñëw déployé ñu bu lépp bi ñu ko compté day mat juróom-ñaari infirmier yi nga xam ni tamit jot nañ fee liggéey lépp bun ko xaymaa day mat fukki infirmier ak juróom loolu daal mooy limu personnel bi nga xam ni ñëpp jàpp nañ ci liggéeyu maam jumaa ji ci infirmerie jumaa ji durant la grande euh, le grand magal de Touba loolu daal mooy li nga xam ni waaw bëri na fi nombre boo xam ni nag dañu def lu mel ne genre tri moo xam ne ay consultation foraine la boobu noom lim bi loo ko takk wees na fa ndax yooyu mooy les cas simples cas simples yi nag xam naa dañ koy tënk ci lu mat ay juróomi téeméer waaye loolu moom jotu ñu leen a bàyyi ñuy dugg ci biir infirmerie bi kon donc ci tri bi rek nan nan jot a jot a waa croix ci tamit dañ leen di sant ndax ñoom it envoyé nañ fi mbooloo boo xam ni ñoom donc doon jàpp ak waa sapeur pompier di santaat bu baax kilifa yi nga xam ni yëpp jàpp nañ ci ndax euh, district sanitaire gis nañ fi taxawinam waa PRA gis nañ fi seen taxawin gis nañ fi taxawin tamit waa Touba assistance médicale gis nañ fi taxawin mboole seen sëriñ ak mboole seen kilifa yi nga xam ne ñoo doon jàpp ci gis nañ fi tamit taxawin ñi nga xam ne ñoo jiite jumaa ji ak liggéeyu sëriñ Touba bi ñuy def fii ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm alhamdulilah rabbil alamin man la Abdoul Aziz Thioban di pharmacien privé nekk fii ci biir Touba euh, département Mbacké représenté fii le collectif de pharmaciens de la région de Louga maa ngi commencé comme ni ko docteur Aly liggéey waxee di nuyu sama mbokk docteurs yi fi teew yëpp di nuyu sëñ Abdoulaye Bousso bi nga xam ni euh, si daayira Moukhaddamatoul Khidma bi na bokk nga xam ni ñoom ñoo nekk maître d'œuvre infirmerie bii nu taxawal ci biir euh, euh, jumaa ji mu nekk loo xam ni am na solo lool comme ni ko docteur Ale waxee boo déggee li fi ñëw ci ay malaat ak ñun fi référé euh, ñëpp xam ne ni lii moom ah, initiative bu am solo la sa dafa mel ni mënu woon fii ñàkk bañ a am bu loolu weesoo ni sant tamit di gërëm ki nga xam ni mooy xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké euh, di ko ñaanal moom ak njabootu Seexul Xadim gi yëpp yàlla defal leen fan wu gudd wu ànd ak ak wér liggéey bii nu bëgg liggéey yàlla jox leen wér ak ay moye yu nu ko liggéeyee ci mbiru nag garab yi dama bëggoon wax ni képp kuy pharmacien nekk ci biir diggante Touba Mbacké ak Diourbel ñu ci bëri participer neen ci dotation en médicament wu infirmerie bi mu nekkul woon dotation bu simple parce que euh, c'est des produits d'urgence euh, yoo xam ni en général sax yu ci bëri du am ci sunu pharmacie yi yu ci bëri si pharmacie hospitalière yi moom lay gën a bëree mais nit ñi def nañ ay effort liñ ci am nu joxe ko ñi ci liñ ci amul tamit ñi génne neen lim ci xaalis jox ma ko ne ma naa ko wut parce que am na si spécialité yu bëri yoo xam ni c'est pas des spécialités qui sont souvent euh, vendues en pharmacie di profito tamit di gërëmaale suma mbokk mi docteur Lo bi nekk euh, PRA Njaareem vraiment def na si contribution moom bu am solo ci ci ay médicament que seetlu nañ que ni liñ fi indi lépp euh, buñ koy xayma ci médicament rien que docteur Lo joxe na valeur cinq cent mille francs ci ay médicament li fi pharmacien yi indi tamit war naa toll lu toll noonu si actuellement bi ñu ko xoolee nii si infirmerie bi daanaka dara desitu fi lépp utiliser nañ ko ba nga xam ni sax dañ doon woote secours ñuy dem di indiwaat yeneen garab donc euh, ci foofu daal ci naa bëggoon a tëjee. di sant suma mbokk pharmacien yi di leen gën a ñaax ci liggéeyu sëñ Touba bi xam ni ñu ngi ci mais nag ñeen gën a góor gën a fagaru ba bu ne vraiment euh, li fi am nu gën koo yaatal ba nga xam ni du nu dara jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaar di ñaan ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd di ko ñaanal jullit yëpp ak taalib yëpp. di tàmbalee sant sant gi nag suñ koy tàmbalee mooy ci daayira muxaddamatul xidma bi nga xamante ne nii ñoo ñu yaatal ci liggéey bi ànd koog suñu joriñ si laat fay euh, Abdoulaye Sare la euh, président Touba assistance médicale euh, liggéey bi nag ni mu tëddee ren comme nin ko baaxoo def nga xam ne Touba assistance médicale bi muy ñëw ren ci màggal gi indi nañ lu mat téeméer ak ñaar fukk lu teg loo xam ne ci awa kër docteur lañ ay médecin ay pharmacien ay dentiste ak yu ci aju ba ci ay infirmerie taxawaay boobu nag ci biir infirmerie bi ci wàllum euh, jumaa ji li ci ëpp mooy côté personnel mooy ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon fii ci barab bi di saytu wér-gu-yaramu euh, ñi nga xamante ne nii ñooy mbokk taalibe yi fi ñëwoon ñu seet leen waaye taxawaay bi nekk na ci li nga xamante ne nii mooy wàllum médicament yi nga xamante ne nii docteur Thiombane mi ngi ko doon wax ñi nga xam ne daara ji am na ko mu jàppandi ci moom ñu daat koy indi ci infirmerie bi nga xam ne ñaari tànk yooyu lañ ci taxawe woon kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom doolu ñoo dimbali doolu ñoo tawféexal ba nga xamante ne nii jéego yi am na ren suñu borom defal ñu tawféex ba yii di ñëw mu gën a jàppandi ci jumtukaay jàppandi ci ci ci médicament waaye jàppandi ci wàllu fajkat ba nga xamante ni lépp luñ bëgg incha allahu taala suñu borom danañu ko ci defal ñu ngi santaat bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen Euh, ñoo ngi jël kàddu ci turu docteur ndey màgget Diop le médecin chef du district sanitaire de Touba balaa ñuy jublu ci kàddu yi rek euh, dañuy nuyu sëñ Mountakha le xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér euh, ak njabootu Serigne Touba gi yëpp dañuy dikk rek di def ay kàddu yu remerciement man la docteur Modou Fatou Diouf. médecin chef du centre de santé Sëñ Saliou Touba 28 euh, di dikk di sant ñi euh, taxaw infirmerie bi ci biir mosquée bi ba liggéey bi ñu amal ko ci biir euh, màggal gi boo xoolee it liggéey bi résion médical moo ko piloté maanaam moo ko jiite wàcce ko ci district sanitaire Touba bi muy dispositif de couverture du grand màggal de Touba mu nekk loo xamante ne ni euh, point bi daawuñu ko jël en compte ci dispositif bi léegi bi ñu ko proposé nag ñoom euh, sëñ Abdou Lahad ak ñoom Ale ak euh, ñoom docteur niñ ko waxee rek bi ñu ko proposé ñu rafetlu ko lool rafetlu ko xam ne lu am solo la ànd kook ñoom it dugal ko ci dispositif bi mu nekk comme post médical avancé yi nga xamante ne ni dafa nekk ci biir district bi nga xam ne boo xoolee hmm, centre de santé sëñ Saliou moo couvrir euh, point yi nga xam ne nii yëpp dafa wër euh, jumaa ji mais bi nekk ci biir jumaa ji euh, daawul ko boole ci liggéey bi bi ñu ko waxee nag ñu intégré ko ci biir mu nekk poste médical avancé ñu koy saytu ni doon saytoo yeneen postes médicaux avancés yi ànd ak ñoom liggéey bi bañ def fi liggéey bi nga xamante ne nii liggéey bu rafet la boo xam ne nii mënu fee na ñàkk ndax bu fi amutan tam mën na jur leneen ndax biir jumaa ji Euh, yombut a dugg dugg ci biir yombul dèjà bu nekkee ci biir am ñoo xam ne ñi ngi am ay jafe-jafe ci biir soit ku daanu di crise wala ku daanu di xëm wala ku dox ba ci yàgg di fatt euh, amatoo noo def yow mënoo génne sa bopp biir jumaa ji te amuñu lu la fi génne léegi kon lii euh, ñun ñi ko dund gis ko it xam nañ ne lu am njariñ la lu am njariñ la léegi ñu doon loo xamante ne nii lu ñuy saxal la ak gën ci waxtaanaat gën xoolaat nuñ koy gën a defe ba mu gën a mucc ayib Euh, ñi ngi sant ñëpp euh, surtout euh, docteur Ale mi mi nga xam ne moom moo doon coordonné ak membre Touba assistance médicale yi ndax d'après depuis bi mu commencé ba fi ñu toll nii ñi ma fi woo bari nañ te ñi ma woo ñëpp daanaka ay médecins yoo xam ne nii ci Touba assistance médicale lañ jóge di sant aussi docteur coobaan mi ak Abdoulahat fay ak sëñ Boussa ndax ñoom bu li amee it ci ñoom la jóge waaw te depuis boobu ba léegi ñoo ñoom ñoo ko seq di ko def jërë ngeen jëf merci. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fa te wéral ko waaye di leen nuyu ci turu Serigne Afiya bu sa imaam mi nga xam ne moo jiita daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Serigne Abdoul Ahad bu sa mutalim mi nga xam ne mooy secrétaire général ak mboolem kilifay daayira bi yëpp. ñoom ñëpp ñëwoon nañ sax ngir ànd ñun liggéey bi tàggatoo bi nii waaye yitte yu bari ci jumaa ji ak ci yeneen ñàkk noppi moo tax ñu dem fële ñu ñu too ñu teew fi ngir wuutu leen ci liggéey boobu kon ñu ngi leen nuyu ci seeni tur di leen nuyu ci turu xalif général des mourides mi nga xam ne lu def ci barab bi ndigalam lañ ko defee xalaatam lañ ko defee ak ñaanam lañ ko defee ñu ngi leen ci turu waaye nuyu yooyu ak cant yi ak ngërëm yëpp. ñu ngi koy jëmale ci mbooleem ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu dugal seen loxo ci lii ndax dëgg la xalaat bi mën naa jógee ci ñun waa daayir Moukhaddamatoul ma waaye yéen ñi mi seen métier jëm ci yéen bu ngeen ci àndutoon rafetlu ko dox jëm ci mën naa bañ a mel ni ñu ko bëggee ba kenn ku ne xam nga dégg nga li ko docteur Guèye waxee ñi nga xam ne eh, faj nañ leen fi ci ñu doon irsa yoo xam ne bu ñu leen faj woon ma détaillé ba dañoo génn jumaa ji mën naa ñaaw toll ci téeméer ak 187 eh, ak ñi nga xam ne ñeneen ñi xam ne dara da leen métti lu woyof mat 500 personnes kon nga xam loolu lépp boo ko boolee nga xam ne kon liggéey bi am na solo kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ndax liggéey bii day taw feex nit ki yàlla suñu borom boole la nga jàpp ci kon ñu ngi sant médecin chef régional di docteur Dieng ñu ngi koy sant bu baax ndax te ren jii taxaw na ci taxawaay yoo xam ne yu am solo la waaye nag di sant tamit Mahmadan Lo mi nekk PRA nga xam ne moom waxtu wu nekk collaboration ak daayira Moukhaddamatoul Khidma dafay rafet mu koy jëf ci rafet-rafet waxtu wu nekk mu ciy dugal loxoom ak i xalaatam kon moom it ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaayam waaye di sant euh, docteur Ndeye Maguette Diop mi euh, mi nga xam ne moo jiite district bi ci bi mu ñëwee léegi tàllal loxo daayira Moukhaddamatoul Khidma lu muy xalaat ñëw wax ko ñun lu ñu xalaat wax ko moom ba tax na bi ñuy jubee def nañ ab réunion ak moom euh, ñi ñi coordonné géey bi ñu bokk fekk ko muy euh, ñii teg surwet yëpp fekk woon ci jataay boobu te lañ euh, waxtaane woon ba nuñ seet ba liggéey bi gën a jëm kanam ba tax ne kenn ku nekk la nga ci war a taxa taxaw ci kon ñu ngi sant Ndeye Maguette bu baax a baax di sant docteur Modou Faty Diouf mi nga xam ne sunu xarit la sunu wëlër la yàggal a liggéey ñun du ma dañ di ko wax bi laata mu ñëw Touba Mbàkke Kajoor la nekkoon ñun koor gu jot dañuy def consultation gratuite di ci faj personnel jumaa ji moom ba mu njëkk mu ñëw Tuubaa daraa bis boobu daraa jóge Mbàkke Kajoor ñëw bokk ci faj mi ba ngoon jot mu gontaat dem nga xam ne xaar bi ñu xaar docteur yi dogal leen sax moom day gontaat dem nga xam loolu ko andi ci dëkk bi kon docteur ne eh, kon docteur Mourou Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bi ñu demee ba indi la Touba tamit bi nga gën a jege da nga gën a futti ku war gën a jàppaat ci liggéey bi kon ñu ngi lay sant ci tuddaay Moukhaddamatoul Khidma waaye di sant ñoo xam ne suñu digganteek ñoom dafay lu yàgg du rafet muy sëñ Abdou Lahad Faye mi nga xam ne xalaatu consultation bu ma wax ak xalaat yu bëree bëri ñu def fii ñoo ngi moom ko ànd leen di xalaatam mu nangu ci alalam nangu ci taawam nangu ci léppam ngir liggéey bi gën a jëm kanam kon ñu ngi sant bu baax sëñ la Lahad fay di sant bu baax doctor Alla Guèye mi nga xam ne bu ñu toogee waxtaan ñoom docteur bi ñoo toog nañ def Alla muy coordinateur bi àll doon coordonné liggéey bi ci yu baree bare réunion yi ñu doon wax yëpp fekk na ko moom moo Modou Faty Diouf mi ñu liggéey ci liggéey bu rafet rafet te lépp lu ñu engagé woon ci ñoom ne danañ ko taxawee taxawee nañ lépp lañ ko mën a defee ba bari na ci yoo xam ne sax bi ñu waxee dañ ko taxaw daayira bi ñoom ñoo futti ko waat taxawul ko seen bopp féetewoo ko ci ay moyen ay yu baree bari kon docteur àll ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant bu baax docteur Thiombane ndaxte yàlla dogal na ni ma ko waxee moom mook Alla ak Abdoulahat bi ñu futti ko li ci liggéey nii yàgg na diiru daanaka weer a nii ñu ciy dox waaye moom mii mboolem pharmacien yi nga xam ne jox nañ leen jox tàllu nañ leen loxo ngeen jàpp ci liggéey bi moom moo ko doon coordonné te lépp lu ñu ko jox yu ci bari andi ko li ci ñu ko doon jox yëpp andi ko ba yëkkatiwaat ay xaalisu boppam ak walanteeru boppam yoo xam ne mooy seen manqué na mu waat def ko ci kon docteur Thioman ñu ngi jotale ak cant di cant mboolem daayira yi nga pharmacien yi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo lii day liggéey liggéey boo xam ne boo bu gis bëgg cee bokk ndax jubaay Sëñ Tuubaa ku fi ñëw di siyaare wala nga ñëw fi jaamu yàlla da ngay wér boo wér doo ko tal te ku fi ñëw tamit ñun li ñuy fa bàyyi mooy sàmm ku fi ñëw nekk ci condition yu baax ba siyaare wala nga julli wala nga loo bëgg a def bëggee naa dem loolu moo waral barab bi ci xalaatu daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu taxawal ko fi boo gisee tamit nag mu gën am ndax fi boo seetee euh, màggal gi jumaa ji mooy njëkki ay gan mooy mujjee gan ndax xam nga ne fi mu toll bu ñu màggalee léegi tey ci àjjuma jëlee ci ñetti fan te li ko wër yëpp fu ñu tollu fajukaay yi fi nekkoon dem nañu looloo tax nag te gisoo ajjuma ji tey ni mu mettee ci yéen ci malaat yu bari kon nga xam ne loolu lépp moo xalaatu li tax daayira bi amal lii njëkk màggal tamit ñetti fan njëkk tamit gis ngeen liggéey bi ni mu ni mu demoon kon nag liggéey bi ñu ngi tàllal loxo képp koo xam ne gis nga ko te gis nga eh, bëgg nga ci dugal sa loxo mu daayira Moukhaddamatoul Khidma mu ngi lay tàllal loxo ngir nga fas yéene lépp luñ fiy def lépp lu fi war a am ñu fa yéene ba mu am fi bu ba liggéey bu ñu soxlaa ay docteur comme ni ko docteur Bousso bi mu fi ñëwee waxee dafa wax ne barab bi yelloo na sax àjjuma ju jot ñubbi ko ay ab médecin xëy si fi bañ julli tàkkusaan mu soog a dem ndax barab bu rëy yi mel nii yëpp noonu lay amee kon nag ñoom docteur Bousso yooyu ak Ndeye Maguette ñëw nañ fi ay yoon yoon wisit ko rafetlu liggéey bi ak yeneen waa OMS ñoo ñëpp ñëw nañ fi defal liggéey bi waa ministère de la santé ñëw nañ fi ay yoon ñoom it defal liggéey bi kon ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm di xam ne infirmière bii di infirmière Grande Mosquée tàllal na loxo bépp nit taalib boo xam ne volontaire ngay defee jumtukaay bu fa war nekk nga def ko danañ sant ñu baree bari yoo xam ne andi nañ fi bagage xam na ko ko ñu wax suñu xéewal jeng ak sëriñ Ahmadou Mbacke ñoom ñu jàmbaar lañ ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax waaw moom docteur euh, xéewal jeng moo fi indi lal yi gisoo ak mboolem ñi nga xam ne ay ministre lañ yoo xam ne da bu ñu waree def dara am na koo xam bari ki doon lal lal lal mat la euh, ñaw yi daane loolu duma ci fay ko dara kon loolu mbir la moo xam ne ku yàlla dogal nga bokk ci mu ci bokk waaye du beral ak cant bu baax waa Touba assistance médicale ndax dëgg daaw lañ njëkk a faj ci màggalu Touba am ñoo xam dañoo defe ne xew-xew bi am sax moo tax ñu euh, taxawal lii waaye daaw màggalu Touba lañ fayagun ak gàmmu bii moo ko ñetteelagun kon mel ne daaw bi ñu ko toog a dox da doon dañ ko doon su ko taxaw waaye mel na ne docteur yii ak ñi ñu amal bi ñu yëgee ni lii am na ñoom it wan nañ ne la weesu ñu ko yëgutoon waaye bi ñu ko yëgee jàpp nañ ci taxawaay bañ ci war a taxawee moo nag móoru accifu waa Touba assistance gii ñu liggéey fi liggéey bu rafet rafet taxawaay bu rafet rafet ci personnel ak ci médical ay ay ay yooyu yëpp nag ñu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet kon ñu ngi leen jotal ay cant ak gërëm ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye nag tubaa assistance bu liggéey ci jumaay Touba wàcc na ndax mel na ne ku ne na fay liggéey waaye ñoom ñoo fi gën a yelloo liggéey ndax Touba Asita comme daayira bu lëkkale yu taalibe nekk ci liggéey Sëriñ tubaa bu ñu demee ba taxul lu mel nii ci jumaay Sëriñ tubaa mel ne yéen amaan ngeenu sas woo xam ne ne war ngeen a tàmbali waajaat ba bu déwén luñ fi am lu nekk ñu gën a am lu mel noonu kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant mboolem seen kilifa yi ngeen fi àndaloon ñëw yëpp ci liggéey bi ndax liggéey bi rafet na sell na ànd nag Pastef kenn jëmbatu dara 24 heures sur 24 dañ fi liggéey ñee yendu ñee fanaan ci fañ nañ fi lu loo xam ne macha allah fa dugg boo génnee danga naan macha allah kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a tax médecins yi yi gën a qualifié ñëw fi ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a tax produit médical yi gën a fort mu am ci barab bii ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci tur daay Moukhaddamatoul Khidma barab bi nag ñun seere rek lañ fi waaye jëf ji Serigne Touba ko moom te Serigne tax ngeen di jëf gis na leen te Serigne Touba da moom ñëmwut bor dafa am fay te ku ko liggéeyal dana la fay ti da waxoon na sama jumaa ji ku ci feeñ feeñ ba faaw ku ci nëbb dootoo feeñ kon nag bu yàlla suñu borom dogalee yéen ñi ngeen am gëm-gëm bëgg-bëgg ak volontaire boo xam ne da ngeen fas yéene liggéey ci jumaa ji ñi ngi leen di sant loolu di ñaan li Sëriñ Tuubaa digg woon nga def ko ndax barab bi ñaari barab la fii ngeen gis nii benn bi ay jigéen la ñoo fi nekkoon di faj ay jigéen benn bi ay góor fi nekkoon di faj ay góor waxtu nekk kon loolu sàmmonte nañ tamit li li jumaa ji war a sàmmonteel kon loolu lépp kon na ñu ngi sant ñoom ñëpp di leen gërëm di sant waa sapeur ne doon nañ jàpp ci liggéey bi liggéey bu rafet ak waa Croix Rouge sant mboolem naa rek koo xam ne jàpp nga ci daal ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sunu xol dafa sedd mm, sunu yaakaar tamit dafa dëgër ndax muy district bi muy suñ Abdoulahat Faye ñoom ak suñ àll ak suñ Tooba ñi doon coordonné li ñu yaakaaroon xamuñu dañu ñu indil ñu mel ne tam sax waaye bi ñu fi ñëwee te suñu xel sedd na kon ñu ngi leen gën a tàllal loxo di leen ñaanal nag liggéey bi yàlla suñu borom barkee la leen ko ba ngeen am ci ngërëma Seexul Xadim ñun ñëpp ñu am ko ci ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen dëgg loolu lépp lu ngeen ci def mel ni ñu ngeen ko defal waaye Sëriñ Tuubaa ngeen ko defal li ngeen war a def la tamit ku sañoon ku liggéey liggéey boo xam ne da nga caa am sa doole jumaa ji moom kenn ku nekk la nga am muy sa métier da ko war a jël indi ko ci jumaa ji xam ne loolu nga mën yéen nag wér gi ngeen féete moom day doon wér goo xam mënta ñàkk leen suturaal leen ndam képp ku ngeen yàlla defal leen ci ndam hmm, képp ku ngeen di xool yàlla defal leen ci ndam ak wér kon mel na sant nañ leen gërëm nañ leen ñi ngi leen di ñaanal yàlla lépp lu ngeen yëngutu mu taseeg tawfeexi Sëriñ Tuubaa ba li ngeen yéene ci barab bi ndax yéen ñëpp muy district bi muy personnel ñoom àll ñi ma wax ñëpp am nañu yéene ci barab bi ak waa waa waa Touba assistant tam ñoom ñëpp kon ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ñu am xéwal yu bari bañ mën a eggale liggéey bi ñu war a def ci euh, barab bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.